yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi tëj nguur yàlla aji kawe ji ci kanamu nit ñi yéen du ngeen ci dugg te du ngeen bàyyi ku ci bëgg a dugg mu dugg ci yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi wër géej ak suuf ngir sàkku benn taalibe ba noppi ngeen def ko nitu safara ku leen yées ñaari yoon yéen njiit yu gumba yi dingeen torox yéen a ngi wax ne ku giñe kër yàlla gi ngiñ li duggul waaye ku giñ ci wurusu kër yàlla gi dugg na yéen ñi dof te gumba lan moo gën a màgg wurus yi walla kër yàlla gi tax wurus yu sel dangeen ne ku giñe saraxalukaay bi ci kër yàlla gi ngiñ li duggul waaye ku giñ ci sarax si ci kawam dugg na gumba yi lan moo gën a màgg sarax si walla saraxalukaay bi tax sarax si sel ku giñe saraxalukaay bi giñ nga ci saraxalukaay bi ak li ci kawam lépp ku giñe kër yàlla gi giñ nga ci kër yàlla gi ak ki ci dëkk ku giñ ci asamaan giñ nga ci jalu buur yàlla ak ki ci toog yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi sàkk asaka ci naanaa ak anet ak kumin te sàggane yi gën a màgg ci yoonu musaa maanaam njub yërmande ak ngëm loolu ngeen war a def waxuma nag ngeen bàyyi la ca des yéen njiit yu gumba yi yéen a ngi segg walax njaan te wanni giléem yéen xutbakat yi ak farisiyen yi nafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi setal bidib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dafa fees ak càcc ak ëppal farisiyen yi gumba yi jëkk leen a setal biir kaas bi ak ndab li ngir biti bi itam seet yéen xutbakat yi ak farisiyen yi feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi mel ni bàmmeel yu ñuy weexal ci biti am na nañu melawu rafet waaye ci biir dañoo fees ak yax yi ñi dee ak tilim ju nekk yéen itam ci ngisal dangeen a mel ni ñu jub waaye ci seen biir dangeen fees ak naafeq ak lu bon yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi tabax xabru yonent yi tey rafetal bàmmeel yi ñu jub ñi te yéen a ngi wax ne bu nu fekkee woon sunu jamonoy maam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 ba mu gent ndaxte maa ngi leen koy wax du ngeen ma gisati li dale tey ba kere ngeen ni yow mi ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga